boo boo doy dama ma ñëw ah. pare na. Aïcha ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di leen nuyu yéen internet national ak international kon mi ko waxee toujours olof ñaar dafa ne nag pour fóotal mbëtt am di roccil bar ba tax na ba ma jógee ci tarkindaay Parcelles Assainies damaa ñëwaat biir Parcelles Assainies waat ah fa fa foo fa fa duñ waxee fa parcelle nekkee parcelle ma daal di fekk fan si club Papa Sow bëgg waxtaan ak ñoom ci ñetti point su ma nuyoo am di Moustapha nuyu gars yi après nañ ñëw xusaat ci bu baax a baax am di maa ngi lay nuyu. Euh, Ndeye Mbacke maa ngi lay fay. di nuyu euh, auditeur euh, internet mbokk internet Leewtoo TV yëpp ah. Mm-hmm. ak euh, amateuru lamb yëpp ñuy nekk di xaar journée le cinq décembre bi mm-hmm. di nuyu sama gars yi ma fi toog ak xam nga. Mm-hmm. fii mooy vingt 26 angle Thio. nga ne. fii mooy rue 26 angle Thio. leer laa la borom borom koñ baa ngi ne taxaw Thio xam nga muy mais moom dafa ñeme saaf nag quoi moo tax mu taxaw tay si ginnaaw caméra caméra yi quoi xam nga di nuyu sama gars yi assurance Aliou Dramé gars moom ay amateur leen di nuyu sama gars yi man su ma deful dara joobiwu ma wala ma wàcci fii la ñuy fréquenté quoi fii mooy kër njaago yi ñun xam nga mën nañu wax sax ay njaago lañ parce que fii la ñuy fréquenté quoi fii mooy kër njaago yi waaw yaa ma a naan ko yaayam njaago baayam njaago kon njaago lañ <laughs> Aïcha mu ngi noonu la 5 décembre la Pape Abdou Fall borom Paf production daal di taxawal journée bu mag Siteu combat boobu nee naa leen ku ñu ko nettali rek bu yóbboo na nga fari say mbaaj dem tëdd ndax combat boobu kenn waru koo nettali kenn dana fees dana neex dina yëngu ndax kenn du pap du fa promoteur bu mag boobu noonu am di Moustapha mhm. ngeen waajal journée bu mag ndax nga ko waajale waaw comme niñ doon waajale yeneen bis yi ñun ñun dañuy am sax bis bu ndaw def ko événement def ko bis bu mag mhm. donc bu ñu amee bis bu mag day gën a yomb si ñun quoi mhm. ñu ngi ko doon waajal comme ni ñu koy waajee comme li ma lay wax rek ñun dañoo am paire ba quoi paire ba moom boo ko amee waaj bis day yomb jëndati na billet yi luyeti na kaar yëpp grève bi sax bu continuer dimanche incha allah dinañ am ay kaar ñu yóbbu. ah incha allah ñun si réew mi lañ dëkk yow. ci réew mi lañ dëkk. ci loolu nag ku wax làmb di nga wax préparation fépp nag. Mhm. ci bépp anam sëmbar mbër fan la ne fan la instant bi Papa Sow mu ngi dis na tëdd di nalaw xam nga di noppalu moog njabootam xam nga ak ay am di jàmmam. Mhm. instant yi waajtaay amatu fi quoi. Mhm. récupération moo fi des. xaar dimanche le 5 incha allah. ñu wan waaj liñ ko expérience bi ñu ko ëppalee lan la. dimanche. nee nañ paa ngeen de yéen dañ leen di delloo retraite. Ah, nangu nañ nangu nañoo nekk paa bëree ba pare. Mhm. waaw mais comme li mu waxoon waa ji laa koy waxaat quoi a ji moom boo fi génnee franc ak rëg-rëg xale amatu fi. Hmm? lu leer laa la wax ñun ñoo judd ay 93 92. Hmm. yeneen gars yi événement naar ñu ngi doxi seen soxla. <laughs> am na Moussa Ba defal ndànk man instant bi commencé gu ma sànnante xeer bi nañ def ndànk rek bing bing ah. Hmm. fu mu ne nii ah. ñëpp xam nañ ne combat ay jour la. Uh-huh. bis yu bis yu bis en tant que yéen supporters ci yéen anam ngeen di waajalee bis boobu noonu. waaw comme ni ko doon waajalee gis nga tey dañuy woo ñaari zone yi nekk parcelle muy zone 8C ak zone 8B. Mm-hmm. di am lu ndaw aussi lu may lu may lu may déplorer quoi di ko ñaxtu président zone 8B muy waxab Papa Sow mënul bëree dimanche 5 décembre. Mm-hmm. muy organiser ay match 5 décembre surtout ay dental di football. ñëpp ku xam ay dental di intervint 19 ñoo denn

eh bu leen tàcc bu leen tàcc def leen ndànk may ma ñëw dem ca dem ca dem ca ger ga di di dem ca làmb ji di baax jooy ca làmb ji di baax moo ko gën mhm. mu organiser làmb football jour boobu làmb am est-ce que mhm. ragaloo gars yi war a dem làmb ji ah tourné dem football ba non ragalu ma loolu parce que xam nga tey ku si nekk sax am nga sa public bu bopp mhm. mais am na ay nit yoo xam ne comme par exemple tey man làmb bu xewle football xewle mun naa seetaani làmb mais tey match boobu bu tombé woon ak làmb damay dem seetaani ko donc man xañ nañ ma dara lu ma bëggoon quoi te ñoom waruñu ma ko xañ mais loolu est-ce que du tënk dara ci suñ supporters yi waroon wuy ji ki nga xam ne mooy Papa Sow tënk dara puisque supporter yi moom xam la ñuy xaar billets yi disponible car yi disponible na kon dañuy dem. waaw ah, waaw ma loolu damay teel dugg rek. Mhm. barki Demba Ndiaye damaa dem fee parcelle. Mhm. fekk ay tarkindaa. Mhm. ma ñëw ci yow yow ba nga gisee tarkindaa yi dëkk parcelle di wane seen bopp ak fi combat bi toll nii lan la la nit moom gis nga nit boo gëmul sa bopp lépp lu nekk si yow mun nga ko wane. man de su ma dëkkoon parcelle te supporté wu ma parcelle aw ma fitu génn sa caméra naan supporté wu waa parcelle jomb naa ko man su fekkee dama ne parcelle laa juddoo yaroo fi màggee fi jombale naa loolu sama bopp quoi mhm. ñooñu nag ñoom ñoo xam lu tax ñu def loolu am nañ si plein droit sport la quoi du génn cadre sport mhm. nañ faral ku leen neex ñun ñu faral ku ñu neex mais incha allahu rabbi yàlla dina ànd ak ñun dimanche incha allah pareegu man nañ nañ ko wax la

ci ci ci parcelle bi mun nañ jël lépp boole ko ne parcelle 1 ba 26. xam nga mais ñoom ay quelques personnes lañ ci biir parcelle bëgg Siteu Siteu foo dem am na ñu ko bëgg nangul dañ la ko mais nañu bàyyi. nee na sax biir kër Papa am na fa am na ay supporter. non man yooyu moom waxu xale la man maa mag toog fii tey heure bii nii di wax ci waxu xale yooyu duma ma wax. ñoom nekk nañ fi nee nañ mun na doomu Moussa lu nekk wax nañ ko ñun dégg nañ lépp xam nga mais garaawul saaga moom yaakamtee xeex la quoi bu ñu génnee géew ba dinañu jox cër par force incha allah. est-ce que jàppoon na ne loolu noonu yëpp ay bataille psychologique la a déstabiliser wala. yow ñii dañoo xam la mooy bataille psychologique yow. ñii dañoo xam ba jeeg parfum xeeñ lu neex yi ci kaw yëngal ci kaw si te yëngal ci suuf ñu dëpp gan gi ñibbi loolu lañ wax ngeen loolu loolu lañ wax nañ ñaan yàlla mu may ñu tal ak fekkee incha dimanche soreetul. Mhm. nee nañ mag la Papa Sow dem na ba dikk lu nekk wax nañ ko. Mhm. mais mag moom bu la daanee j'espère que nii vraiment di nga taxaw nangul nangu nangu taxaw jàkkaarloog askan wi ne man mii mag laa. Mhm. si kàttanu yàlla dañ koy daan. incha ci noonu nag bu ma waxee balaa may génn ci Papa Sow sax damay ñëw ci fans bi ñu gis làmb boo amee fu mu ne nii sa da ngay daan say supporter yàq nga daanu say supporter yàq en tant que jeune naka ngay naka nga gisee loolu waaw dañ koy ñaawlu parce que ñun ay homme lañ quoi dañoo yor soxna yor doom xam nga di gérer kër yàq duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko nangul kenn mais aussi may lancer waale foofu message benn euh, CNG quoi ma leen di wax ne leen pipalu làmb pipalu làmb président fan club kese mënu ko gérer fan club bi kese mënu ko gérer donc mbër mi nekk ci géew di bëre mënul gérer people bi ci kaw tribune bi maa ngi gis fan yi ñuy téye ay reliquat wu mbër ak di ay mbër ci ay euh, chaise ñu yàq loolu mënuñ ci dara dégg naa nag jot naa information que seen réunion démb même même homme de tenue yi fa ñëwoon sax dañ leen wax ne leen solution bi mooy nañ xam ne solution bi mooy ñu dindi chaise yi parce moo gis am na réalité ñun chaise yi ñu defar rafet na baax na mais dafa am ñenn si ñun ñoo xam ne bugguñu ko te loolu Euh, occasion la si ñoom pour tey suñ bëggee def yenn yi ñu def ko quoi. mën nañ ko dindi bàyyi ñu ñun tribune bi nu mu mel noonu ñu siy toog. léegi loge bi ñu def. am mm-hmm. du benn stade bu mm-hmm. mm-hmm. baax euh, comment dirais fee jam ñaajo. mën na am dina am partie yoo xam dinañ ko fa soxla ñu def ko. mais su fekkee chaise dañ ko def arène nationale chaque dimanche booy yàqu ko loolu amul chance

puisque chaque combat di nga gis booy ku bëree daanu wala nga daanu di ko dindi sànni ko si biir stade bi te rafetul te mbëri ñu ngi gaañ ñu ngi loru parce que am na ay mbër yoo xam ne bi ñu bëreeg léegi kenn xamul kañ la ñu ngi téye seen reliquat depuis lor est que xam nañ mbër yooyu tey seen xaalis boobu yan soxla lañ si waroon a faj Sénégal dafa métti trop réew mi dafa métti nañ comprendre mbër yi ñuy téye seen xaalis parce que mbër suñu amee combat kenn du leen jàppale bu combat desee une semaine lañ leen di du leen jàppale na waa CNG xam loolu di ko bàyyi xel ci noonu na CNG démb la wax nee na mhm. ku yàqati siis yow sa mbër moom la ñuy nangu reliquat am mhm. en tant que président fans ban message ngay lancé sa bopp sa fans club ak yeneen fans club yi xam nga man tey ñi ma ànd fii leer na ma leer yàlla suñu àndee dem stade duñu yàq chaise mhm. mais tey fii nii ku si nekk tey combat passé mun nga invité sa dix copains dix copains ku si nekk ak fi mu juddoo ku si nekk ak fi mu yoroo mm-hmm. ku si nekk sa jikko mm-hmm. kii yàq sax parfois yow doo ko gis da ngay ñëw ba si koñ bi ne la diw moo doon yàq te doo ko xam mm-hmm. mais léegi kooku noonu di yàq boo bëggee sanctionné mbër doo lor mbër bi lan la si mbër bi ah, ah, non man xama lan tey état dañ ne dañ si def 32 milliards 32 milliards du ay caaxaan ay caméra de surveillance def fa sécurité bu doy en même temps caméra de surveillance ñu ñu ñu vérifié supervisionné leen ku si nekk tey mën nañ la topp ba fi nga dëkk jàpp la li ngay subir nga subir ko yow ak sa famille. boobaa kenn dootul mooy yoon ndax police Sénégal. Mhm. am nañ jumtukaay yoo xam te ne ku ñu bëgg a jàpp. yow mhm. jour xel nga waaye dama dellu subaa rek ci Papa Sow Siteu. Mhm. ñu ko waajal la 5. am di coow li bari combat bi yàgg yàgg yàgg yéen supporters yi. nan naka la leen yàggaay combat bi def da saa suñ ko jàppee dañ ko jàpp ko ba mu des ay 5 jours sax ñu annulé ko loolu ngeen ko dundee waa vraiment métti mais plus particulièrement si mbër yi quoi. Mm-hmm. je me rappelle très bien jour bi combat bi di yàqu Papa Sow nekk contact. Mm-hmm. ñu wax ko ko rek mu découragé wu. sol yëre dem toog mel ni ku feebar quoi. nga xool ko yërëm ko puisque préparation làmb dafa métti ku leen jegewul doo ko xam quoi. Mm-hmm. ñun xam nañ ne préparation làmb dafa métti. mais bu dee coow leeg affaire yooyu dérangé wuñu puisque dañ ko mos a xaar. ndax boo waree bu rek ay wax waxkat moom da ngay xaar lu nekk. ñenn wax waxkat yi waa Cité Tarkindaay. non wax moom day sol tubéy mbaa mu sol yére tarkindaa yi ñooy wax kat yi wala déet xam nga gox bu nekk am na lu mu am ci làmb mhm. mais ñee ñëpp xam nañ ne wax lañ mën ci làmb <laughs> Siteu lañ am na Siteu ah, dama ne moom ak waa këram wax lañ mën si làmb loolu la yàlla dogal dégg naa la kàddu gi joxaloo micro bi keneen ma sàjj moom tuuti daal di ñëwaat assurance assurance jëlal <laughs> kaay kaay toogal. assurance maa ngi lay nuyu yëkkati micro bi. maa ngi lay fay soxna si. noo def maa waa. xool sama caméra ñëpp. di nuyu làmb di nuyu yi di waa kër Cité yi waa kër Papa Sow maa ngi nuyu ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ñu waaj la 5. incha yàlla baax. macha gis nga fair bi mu jiital nee na maa ngi nuyu waa si yi di nuyu waa Papa yi ngeen di waajal combat bi le 5. Mhm. ci yeen wàccaay ngeen toll fu mu ne nii. waaw comme fi ñu daan tollu rek tey jii si tey Paasow mooy bëri ak sita képp ku am licence si àdduna Paasow moo la ëpp victoire actuellement si mbër. mbër bu am licence si senegal Paasow moo la ëpp victoire kon. préparer Siteu du ñu jaaxal ñu ngi préparer ñu ñu war a préparer entraîner lekk tëdd nelaw. waaw te fi mu toll nii moom récupération moo si des rek mais dara desatu si wax dëgg yàlla. tey jii fu ne nii ci benn point laay wax ak yow bu ñu doon xool xeex bi gën a arrangé. en tant que amateur gën a bi en tant que amateur bu doon xew xeex yëkkati sa micro bi. xeex bi. Papa Sow la gën a arrangé. Papa Sow. Siteu moo ko ëpp relonge li ma jàpp mooy xeex bu amee ki ëpp relonge mooy avantage am. Papa Sow musul bëre ku mu tolloo relonge. waaw te am na 21 victoire moo ëpp victoire si làmb te bi muy dugg si làmb dañ ne woon mënul nekk mbër parce que taay bee tax. Mm-hmm. mu dem ba toll foo xamante ni dañ. mooy mbër bi ëpp victoire si làmb. kon moom ay relance du ko jaaxal ku xool paasaw ñi mu bëreel paasaw bu leen fàtte moo daan jos ñaari yoon moo daan tonnerre moo daan Boy moo daan Bac Seras moo daan Birahim 2 daan Santan ñi ngi daan Baye Mandione bu fàtte loolu loolu palmarès la moomoo maa ne lii de waa waa Papa Sow dañu ma xaar denc loolu sax dañoo préparé armé ba dëgg pour defante ak waaye fii ngeen may fekk ete ñëwal Papa Siteu la xam nañ ko. Siteu nekk xale nekk ci yoon te bu ñuy xool Papa Sow moo jiitu Siteu ci làmb ji est-ce que yaakaaroon ne xale yi ñooy génnee mag ji làmb ji. Papa Sow mag bu am jom la. nekk na mag mais màggatul. mag bu am jom la nekk na mag mais màggatul. loolu nag wax la. Hmm. waaw borom wax Papa Sow lan nga koy wax fu nekk nii. Papa moom xam na li ko war. Papa Sow mën na cote sa boppam. entraîné na li mu war a entraîné. def na li mu war a def mu ngi récupéré mu ngi def lépp mu ngi mu ngi def lépp lu mu war a def ci làmb. Mhm. entraîné na récupéré ñun loolu rek lañ ko sant. entraîné lekk wal suur tëdd nelaw man daf ma rassuré daf ma ne solal jësneer bu weex tàll sol si loge ma fekk la. ala blanc bi laal laa ni moom daf ma wax solal jësneer bu weex tàll. Mhm. ma daan si fekk la si kaw jox la trophée bi. loolu rafet na joxoon ma micro bi waa kaw ma bëggee leen tous. salaamaaleykum maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. jël sa micro bi. maa ngi lay fay bu baax. kii moom. ci bagaar lañ doon wax yow man ak yow dañuy wax ci mystique bi. ku xam si te xam ne. mystique du bàyyi benn détail. est-ce que leen si te jàpp nañ ci mystique wala. non affaire bi du mystique liggéey la liggéey ak mën a bëree. liggéey la ak mën a bëree mystique moom yooyu day motli rek. Mm-hmm. mais papa daa doon mbër moo xam daa neex a yóbbu quoi. mbër boo mënee bëree. am fit mën a xeex kooku kooku lool kooku boo ko yóbbee doo tiit. waaw macha allah xel dal na ci moom. parce que damaa for ci wéewu bay yi ci yenn fan si benn fan si Papa Sow bi ñu ne ragaluñu Papa Sow mais bu ko Siteu jàpp ci gàllaaj du ko daan est que yéen ngeen ne loolu. mën naa psychologiquement laamu laamu gàllaaj liggéey la. am doole mën a bëree. Mm-hmm. waaw mu yokk dara ci laamu da nga mu yokk ko. amul dara lu yokk daa pare pare na. waaw pare na papa na kaw mën na suuf. mën na bëre mën na xeex papa amul dara lu muy xalaat. yokk la jëli ko. di woo waa PA yëpp ñu ñëw. dooleel ko. loolu rek la xaar mais amul dara lu ñuy xalaat Siteu. Siteu am mooy loolu. Siteu day xaar loolu nga gis. lan nga wax supporter yi. ñëw rek waa Parcelles yëpp dañuy ñëw. waaw papa ma mën a yoon du Parcelles rek ñoo koy bégee. fépp kii supporter papa ne na ñëpp ñëw ñu dugg ko waaw. di wax ne nag suur boobu parcelle dañu am ñetti doom yi ji bëree mi Pape Becaye ak Petit Lo na mhm. parcelle ñëpp génn jàppale seen doom ñu am ndam mhm. waaw loolu daal la ñuy xaar si ñoom yàlla may ñu ñetti ndam mhm. waaw am di joxal ma kenn ci kaw ma ma sànni ak moom ñaari question waaw salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay nuyu waaw ah, maa maa lay fay ñaa ngi ci jàmm message ngay lancé supporters yi euh, waaw dama leen wax ñu fair play rek. fair play te xam ni ñun ñëpp benn lañ. muy parcelle wala jàmm gën wala fépp fu mu doon. ku nekk na ñëw bénéficier wu rek ñu ànd kafre def ko féet. ñibbi incha allah Papa am ndam ci kaw Pape Gueye Siteu. fu mu nii boo nekkee noonu Papa cinq minutes avant combat ban conseil nga xaw mu baree ko. ban conseil laa koy jox ci bëre. mu bëree ko lan nga bëgg mu bëree ko bon man sum ko gisoon dama ko naan Papa teg sa micro bi instant yi dénk nañ la parcelle. pour nga jël drapeau bi jiital ko ci kanam sa expérience ak sa yar. micro micro. ak sa ak sa ak ak ak ak sa expérience ak sa yar lu mu la mayul dara mun la koo may ñun tey mun nañ ne tey da nga ñëw wan ñu yoon parce que képp ku xam Papa xam ni référence kon Papa Sow tey. dañuy ñëw rek dolli ko ñaan ñaan ci Yeesu Kirista ñaan ci Mariam mu sell mi loolu rek lañ am amuñu luñ koy conseillé parce que dañ ko wóolu loolu laa amoon lu may wax. merci beaucoup jaajëf am na jërëjëf micro bi. tous. supporters yi supporters yi gars yi ne bu mbooloo bi doole ñu doole da koñ bi mairie par carte la ñuy jur loolu la ci woo wax. par am na Moustapha léegi man. ñi xam ne dañuy naan Papa amul ay mbooloo bu ñëwee stade ñaari kaar la indi lan nga leen di wax. waaw xam nga parfois waxu soxor day am parfois waxu mbalak day am mais parfois aussi waxu yàqkat day am quoi mais ñun Parcelles sunu gox la ñun fii lañ juddoo yaroo fi màggee fi jàngee fi alxuraan moo ko lee fi donc ñun mënuñu am lu ëpp fii xam nga fii unité ba unité cat ba cat fu ñu dugg dañuy jaar suñu tur ñun aussi dañuy jaar suñu turu morom yi kuñ bëgg a dañ lay mobiliser ma lay wax benn affaire buñ ne la Papa Sow day mobiliser rek day mobiliser maa la ko wax jour combat boo amee jot midi laa la wax bu la fekkul foofu moom jarul ngay ñëw tali bi séparé 19 ak 16 but ba but dama koy teg njege njaay incha allahu rabbi dama koy du bam fees dell di lancer di lancer waale message tous les parcelles waa unité 10 dafa am ku fay jógee ñu koy wax Ahmed Petit Lo. unité 18 dafa waaw unité 18 dafa am ku fay jógee ñu koy wax Pape Bekaay. Mhm. unité 19 am ku fay jógee ñu koy wax Papa Sow. donc ñett unité yooyu ku si nekk génne sa doom yeneen unité yëpp dañoo war a génn ñëw soutenir ñetti ñooñu pousser leen à la victoire. parce que ñoom ñun xam na lañ xam. travailler ensemble gagnons ensemble. Mhm. ñoo liggéeyandoo te dañuy gagnandoo incha allah wan by wan kenn ki day daan jaar si yàlla ñaan yi keneen ki daan jaar si yàlla keneen keneen ki daan ànd ak supporter yi ñibbi incha allah. nga ne lan kenn ki day daan jaar si yàlla ñaar ñi keneen ki daan jaar si yàlla kenn ki keneen ki daan ànd ak supporter yi ñibbi. loolu neex na ba tax na fa lay jeex da tàggatoo temps ñu mayoon daf ñoo xaw a tënk am na Moustapha ban message ngay lancé tàggatoo waale ko. mooy di ñëpp si dal ah. ñëpp ñu ñëw làmba ja ñu ngi leen di leneen lu fa leneen lu fa dar rek da ngay sonal say mbokk quoi te ñun duñ sonal suñuy mbokk te ñu yàlla tamit aussi kenn di sonal say mbokk na gars yi ñëw si fair play parcelle waaye génn jaam waa jaam gën génn ñu duy esaat ba mu dama lay wax benn affaire ñun ak Siteu bokkuñu ay xeetu supporters yu ñu yóbbu esaat nee gox bu nekk am na ay réalité yow boo duggee jaamu gën xool ñuy dox dugg parcelle xool ñuy dox ñun da ngay xam ne du ñu benn bokkuñu quoi lu leer laa lay wax no loolu du lu ñuy détaillé day feeñ quoi ci esprit yi la comme ni ko gars yi waxee ñun bu ñu waxee rek feeñ. ñaay ngaaka quoi Abbas Ndao lañ juddoo dama ni. na gaa yi génn ñi ay ngaakalen bu ne ñii ñeneen ñi ay ngaakalen ay waay kan laa andi man man waxuma ñoom ay ngaakalen dama ni. mais attends fii Papa Sow la <laughs> dama ni li ma la wax li la wax dafa leer quoi dama ni la. boo ñu xoolee ñu dox nga xam ne esprit yi bokkuñu man loolu laa la wax quoi sa waay ñun def nañ petite section def moyenne section ak grande section bokkuñoo ak ñee yow. ñu ne jaaruñ ci banc. non lu leer laa lay wax. dama ne ñun ak ñoom daal bokkuñu. wax naa la ko ci côté bu nekk ndey mbaake suwaat nga dégg wala nga bañ a dégg na parcelle waaye génn ñu duy esaat paccal poussière yi taal fumigène yi rëkk asiko yi Papa Sow waa ji daan ko si kàttanu yàlla incha allahu rabbi mu ngi lépp doon naa sax lamb yi ñoo ko mbëri ñu ay mbëri bu baax a baax bi war nañ yokk salaire de war nañ yokk salaire am dem Gambie muy dawal après di caméra yaa ma gën a xam li muy ko xamoo ko de waaw yokk leen ko rek waaw yow. gars yi de soo